بسم الله ينبلها yow mi yor sa sànce bëgg karole sa kër ba muy nes na si gaawal gaaw seet si waa Taïf Karo ñu ngi fii jàkkaarloog hôpital CTO nee naa la ay karo ya nga xamante ne bii du os du furi da ngay fomp muy gën a rafet fii dong la ci Taïf Karo ji bi Bamba mooy gérant bi karo yu baax yépp fii la ñu joxante rendez-vous ci suñu biir place bi nga mën fi fekk karo italien espagnol wala indien yu ci mel ni ay grès poli 60 60 wala poli 1 mètre 20 nga xamante ne bii pour salon la salle wala couloir couloir ay carreaux décoration pâte de verre yu amul fenn ay carreaux faïence pour cuisine wala toilette lepp lo soxla ci walu baguette amna fi fii yow mi soxla ay carreaux parquet gawal gaaw ñëw ci Taïf Carreaux andil len ay sièges anglaise yu bes tax ya nga xamantene bi ay nouveau modèle la waxna la lepp lu jëm ci walu sanitaire Taïf Carreaux mo ci mën ay carreaux grès salam grès émail wala grès poli 60 60 ay pâte de verre ba ci ay plinthe ay marche escalier wala contre marche ay carreaux espagnol 60 60 60 40 40 wala 50 50 nga mën fi fekk Jibi Bamba mii nga xamante ne bii spécialiste la ci wàllu jaay karo mbokk yi nee naa la roy du nuroog pire te ki mën ak kiy jéem bokkul jëlal suñu numéro téléphone jokkool ak Jibi Bamba ci 77 745 76 88 ak Taïf Karo seen jafe-jafe ci wàllu karo jeex na tàkk. parce que tey <laughs> mënoo ñëw ne euh, nu mu tuddati. ñaa bu ndaw Zarko combat la bëgg na Bébé Diène euh, sawaay du combat ay caaxaan la mhm. parce que Bébé Diène gàtt boo dee xool def na ñaata komba def na plus de treize wala quatorze mhm. te boo dee xool euh, trois défaites la ci muy bu ko Ousmane Gandigal daan mhm. ak Thiandoum 2 ak bii mu mujjee ci Amaneex gàtt gat am na neuf victoire wala dix kon nag fu ñaa bu ndaw mi am dix combat mën a bëre ak euh, kisawaay Bébé Diène war na fa mën a bëree moom te Bébé Diène am na coow comme ñoom day mobiliser comme ñoom. Mhm. Mhm. li Zarko di bëri ndax seen rythme bëree yi. Mhm. Ah, daal a xale yi sa waaye ñu ngi noonu quoi xam naa ne ku ko ci mënta duma pour nga daan ko day jafe. waaw parce que tamit lu coow li bëri bëri bun génnee ci sëq géeño buñ ci génnee Bébé day ñàkk sens ci combat boobu. waaw bu yeggul ci giñewu Zarko mën na ñàkk sens ci combat boobu noonu. parce que boo dee xool Zarko lim ko sutee ëpp bëri na trop. Bébé Diène nag am na bëre Zarko dàqul bëre Bébé Diène de. mais da koo gën a wóor bëre. Bébé Diène bëre bi. bëri na trop foo ko yegg day bëre même wër ndoom sax boo ko defee day bëre mais bëre bi dafa am ay faay. waaw dafa bëri ay faay. xëy na nag li muy xale moo tax. Mhm. expérience bi ñëwagul. Mhm. xëy na nag âge bi mu am bi Zarko am moom bu ko amoon expérience am mën naa ñëw. moo tax ma ne la combat bi bu ñu demee ba yegg ca ban taxaw def signature. wala ñu def seen dernier open press bu ma la ci waxee li ma la ci wax du deñ parce que la ma la waxan ca ama neex rek mooy dellu si waat. Mhm. mais li Zarko wax na ne na suwaa la ci moom. Mhm. parce que li tax mu bëgg a bëree Bébé Diène xëy na règlement de compte la parce ko ne bu ko neexoon mën naa am beneen adversaire parce que tamit def na ko fi Sarko mi ngi ci ay onze victoire wala douze victoire comprendre nga moo tax ma ne la comme moom moo bàyyi loolu lépp ne daa bëgg a bëreeg Bébé am na lu mu jàpp ci xolam wala am na lu ko bébé ma masa wax wala am na benn règlement de compte bu mu bëgg a faj digganteem moom. Hmm. Hmm. bébé Diène ci ki nga xamante ne mooy ama waaw la war waaw taxawaay bi moom du metti parce que combat boobu ci ci ci Zarko la gën a metti ka bébé Diène. Hmm. combat bi Zarko la gën a metti foofu parce que tey bu ko bébé Diène daanee day def exploit bu rëy rëy rëy fu Ada Fass réussirul dama naan cinq combat yi sax lu ñu réussirul magam patron Diène Kaïré réussir ko mu ñëw réussir ko. Mm-hmm. kan moo koy bañati li ci làmb. kon boobaa bébé Diène day ñëw à place de mm-hmm. ay ñoom <laughs> dina jege ñoom Siteu de. Mm-hmm. dina leen jege trop ak ñoom booy ñaa ñi parce que Sarko mi li yi bëri bëri xale bu ko fi këpp bokk ci gaay waaw am na solo comme que combat bi ñëwagul bu ñëwee dinañ ci gën a waxtaane mais maa ngi lay kontaane bu baax a baax ci leeral yi nga xamante ne moom nga leeral tey fii waaw waaw di santaat rek di santaat bu baax a baax di la nuyu di la jox sa wàccuwaay bu baax di nuyu aussi tamit Cheikh di nuyu suma gaa yëpp Abdou taal bu xarañ loo Aliou borom Ramdan Couture xam nga Abdou Seen bu jeey seen suma gaa yëpp maa ngi leen di siyaare bu baax a baax kom nag ni ma koy waxee chaque jour man xale sant rek moo ma war yàlla bu baax parce que nit moom bu fekkee ne da nga jek saa lu la jafé won lu beuri commencé de la yomb damay sant. sante rek ma war parce que tamit man mi bu la waxé ndakaaru gi xam nga ñetti guddi yi nak ku ne amon na fi seigne touba sa amon na fi. <clears throat> est-ce que xam nga ne ndakaaru ay jour yo xamanteni ni potu ndox lay réré hmm. barke sayidina mohammed potu ndox. wallahi la ma lay wax lu day war nop daloti na yag na toroxal gor de. barké cheikhul khadim yag na toroxal gor. toog naa ci sama gars yi vingt deux heures vingt trois ba minuit di guddil mhm. ndax aw ma lu ma reere mais dinaa guddil parce que nag li gën a bon mooy réeroo ba pare teel a tëdd doo nelaw wallaay lancin lii ma lay wax kay bu dul dëgg lii ma lay wax ne bu dul dëgg yàlla yàlla nan ma la tàgge mais damay toog ba ay vingt trois heures minuit ma ñëw jël potu ndox jolu ko ba mu jeex tàkk ma tëdd sama ngor ba suba ak jàmm suba mhm. ma naaje yeewu mhm. jël kaasu café naan dem ci gaay yi buñ ma mayee cent ma jël buñ ma mayee deux cent ma jël nii cinq cent hmm. parce que maman boobu noonu metti woon na si man torop dama doon toog sax maanaam tey pour maanaam añ jot ma am cinq cent bu ma jëndee añ day jafe <laughs> wala reer jot man sama reer dama ko doon yemale ci deux cent cinquante sama ndékki deux cent cinquante sama añ des fois ma am pain chocolat des fois ma am hmm, yeneen. boo xanaa amoo foo loger. doo boobu maa ngi benn gi. man bental def naa fa 10 ans wala 11 ans. kër famille bi nga dal ak yooyu. non non des fois day metti bii ma lay wax boobu tuxooguma ci eh, ñoom Moustapha Kane maa leen di siyaar baax ak sama tante nabu jéen maa leen di bëggee foofu ba ma fa nekkee aw ma benn problème mais lii ma lay wax boobu maa ngi côté Jumaay Mouride mm. kër gi ñëpp ay location lañ. donte am na ñu fa nekk nag muy sama maman euh, yaayu ass Ndiaye yaayu maman Ndiaye muy maman Ami ak ñoom Ziza ñoom ñëpp ma leen di siyaar mais des fois gor mënoo jekk saay ngay ñëw naan réeru di ñaxtu te ngay xëy di liggéey sa morom di xëy di liggéey di génn ci kër gi comprendre nga wallaay lazim potu ndox reeree naa ko budul benn di ñaar moo tax ma ne la tey bu ma demee ba nga xamante li ma jafe woon lépp day am luy commencé di ma yomb man ñi war a sant yàlla man maa ci war a jiitu. parce que nag coow li bëri na mais Sëñ Tuubaa la ma waxoon moo ci am. jafe-jafe boo gis jàppandal moo ci toog mais nag ci biir jafe-jafe yow fexeel ba buy jaay sa ngor. Mm-hmm. bul cuub sa daraapo bul sàcc bul war bul suru bul wuruj. Mm-hmm. mais saa bu demee ba jàppandal ñëw nag dangay sant parce que bu fekkee ne jafe-jafe daa ñëwoon nga dem triant wala nga def yeneen tey bu jàpp ndal ñëwee ka nga triant boo dajeek moom boo yoree ay millions sax du ko saf boo yoree ay milliards du ko saf que cuuboon nga sa drapeau. li nga am tey lan moo la ko may patience wala. <coughs> waa dara nit moom lu mu may lu mu am lu nekk ci kaw suuf gis nga sa lit motivation bii nga nekk dama naa lay gëm ko xam nga lan moo tax ma naa lay gëm ko man dama nekkoon arène bi jaar fa. di dem ci samay moyen bop di tourner ji dem ba ci yag Xavier ak ñom toni ñëpp jappale ma appuyer ma mais dama na la tay bu fekkee ne da nga nek ben affaire li nga yor ni muy micro bul ko xeeb ay nit nga nek fu nek di la seetaan xam la te xamoo len motax mané la nit da ngay am patience nit nga gëm li nga nek baña yakamti yakamti rek mo yakal doomu adama yu bëré bëri parce que man xamna ne ma yakamti won manana jaar fi feneen wala mu dugg ci lenen parce que na ay métier yu ma jaar comprendre mais loolu lépp pour wàkkirlu ci suñu borom parce que suñu borom dafa ne bu fekkee ne da ngeen a wàkkirlu comme picc yi ma wërsëgal leen comme picc yi kamaa yar soxul tayiru tax doo ximaasan wa tarxu bi taxaanan picc yi bu ñuy xëy dañuy xiif mais bu ñuy wàcc dañuy regg mais nag gaay yi tey ñoo nekk ay jaam ba pare mais wàkkirluwuñu tey boo ñàkkee da nga yaakaar ne nii te la ko def boo tëddee sa yaram métti da nga yaakaar ne dañ laa liggéey boo toogee say mbir tëju da nga yaakaar ne dañ laa liggéey loolu lépp njortu bu ñaaw la te njort bu ñaaw day sonal borom. Mhm. macha allah ah, ñaabu ndaw. waaw ñaabu ndaw nag tey a ah, man da bu ma amoon conseil bu ma ko jox dama naan bokk na ci histoire làmb na xool li nga xamante bi ni maanaam tey manqué na ko mu dem wutiwaat ko parce que tey man dama gis ne góos lay jiital mhm. di xeexee loxo góos. loxo droite bi handicapé la te am njool am njool waruñu laa paqueté di daw ak yow te ñaari combat yi passé yëpp wala deux défaites yi mu am ci làmb yëpp dañ koo paqueté ñaabu ndaw première défaite bi muy bëree ak maas booy jonn booy jonn daa paqueté ñaari tànk yi dàq ji ko daan ko dernière défaite am Zarko koo paqueté daa di koy roof benn sol ca kaw plaqué ko def rotation mais nag tey taay bi mu am si làmb ak gabari bi mu am si làmb nekk xale ñaabu ndaw boo doon xool ay ay vingt cinq ans lam ay vingt quatre ans ay moroomam moo ci gën a nekk booy taxawaayam ci làmb na dem jàngiwaat xeex bu baax parce que njool mu toll noonu ay loxoom bu dee wax dina yombal ay kombaam caatu yoof mi moo dàq bëre booy de mais booy bu ci mën a bëre comme moom day xeex yow wàññi la xeex day yombal bëre ñaabu ndaw na dem jàngiwaat xeex ñaa bu ndaw na dem yokkiwaat bëre man na bëre mais dafa diib bëre bi rythme bi foorul comprendre am na doole nag am na résistance am na bëre mais loo man ban man bëre am na ku la dàq bëre parce que comme yàlla dogal na géejawaay moo fa dugg mujjee dugg ci làmb ci mbër mais lam fay drainer boo limee quatre mbër wala cinq mbër moom nga ciy teg loolu suñu borom moo ko def kon nag li ko may loolu na dem duggaat école bu baax jàngiwaat bëre jàngiwaat xeex jàngiwaat moytu wutiwaat gàtt dem wutiwaat lépp parce que avenir u làmb la produit bu baax la làmb dañ koy xëccoo nii nii may waxe yow ñaa bu ndaw Modou Anta mën nañoo bëre Modou Anta bu Thiès combat bu neex la ñaa bu ndaw ama neex mën nañoo bëre te man biir ne na ma ama neex ku fekk fa mu jox avance bu ndaw mu jël ko am naa si leer nañ comprendre kon bu nit tay, adversaire yoo nga tey dafa am ñoo xamante ñoo la raw ci làmb sax bëgg nañ ko am mais mënuñu ko am yow mu yomb la lan moo la war demal nga rey sa bopp gaynde nekk ci sa bopp xam ne yow mbër nga boo bëree mbër nga boo bëriwul mbër nga parce que li gën a am solo ci làmb loolu moo la wuy si muy mbooloo am na ci ñi lay da ñëpp xaaj bi dëkkuñu géejawaay fu ne lañ am te mbër saa boo gisee mu bari mafia rek góorgóorlu rek ko war amatul droit def erreur ci làmb mais fu su bëri dañ ne day roy ci Boy lu bëree bëri ci diggu géew bi rek. ñoo bokk bëre kay loolu kay dama lay yombalal question bi rek. comme calcul yi ñuy calculer xam nga di sóoraaleeg yooyu da moytu ak yooyu. waaw kenn ku nekk na ngay bëree. kenn ku nekk na ngay bëree mais moom boo dee xool lu la réer ci Boy Niang rek xool ko ci moom. Hmm. xëy na nag am na méthode de bëree boo xamante bi ni boo ko xasee jàng wala boo ci xasee roy nit ba yegg fenn pour nga changer ko day jafe hmm. waaw mais xam naa ne man ñaa bu fekkee ne nekk naa coach prochaine combat bii di ñëw day toog si tay ay tànkam dox ci kaw adversaire bi agressé ko xeexam moom gauche droite yu saf-saf ak ay hypercule yu dal day am safara quoi safara bi mooy arbitre dagg jéng yi mi ngi sa kaw loolu nag jàng la jafewul gis nga diriger mbër jafewul ci xel la rek ak psychologiquement nga am tranquillité rek tey ñaa bu ndaw bis bu demee ba man xeex gauche droite bu baax hypercule ba arbitre bi sifflé am njool la pour nga gis ci làmb ji ku ko sut ku muy bëreel dina jafe. Mhm. kon nag bu arbitre damay wàcc say may tànk. Mhm. tàllal sama loxo dox wut sa kaw. Mhm. boo taxawee fu ma tàllal sama loxo dalay dal. boo dawee song saa ma la koree dóor hypercule dalay dal. kon nag yooyu ñaar yooyu. muy sañ-sañ bi. agressif bi ak xeex bi. bu wuysoo ci moom mën na nekk roi des arènes. gars yi ñu ne tamit daa am problème de mooy mbër mbër mu ko song. mbër mu ko song parce que Bour Sine jël si na ko te da koo daan xam nga gars yi defet moom bu ñëwee lu ne la ñuy wax ah. Mm-hmm. defet bu ñëwee sax dañ naan mënul bëree te gis nga bi mu fi doon jàpp ay ñoom rëm. Mm-hmm. di leen dóor songale taf wii ñu daan bi mu fiy jàpp armée bu ngiwel yanu dóor ci suuf mm-hmm. bi mu fiy jàpp eh, nu mu tuddati R5. daw paquete daan ko bi mu fiy jàpp buloo libidoor bu pasi demal xool bébé tafaatin ñoo ñëpp ci bëre la leen daan mais instant yi Zarko da ko daan nga dégg mënul bëree dafa diib xam nga làmb moo demee noonu. làmb yow sa waay boo daanoo da nga naan man est ce que daa mas naa daanati mbër. dëgg làmb boo daanoo nii. làmb boo daanoo surtout ci genre Modou Anta yi jàpp la ba bàyyi la danga naan non ndekete man du ma dara ndekete defuma fi dara. maanaam le fait que amoo tranquillité ci biir làmb. gars yi dañ lay déstabiliser. mënoo bëree amoo doole mënoo xeex da nga soxor da nga def nii danga nga bëgg a roy diw. bi mu doon daan gaay yi est que booy bi dañ doon wax naan dafa intelligent booy bi moo booy ñaa kiif kiif booy bi dafa doy waar. bërëm dafa wóor lu def lu mu mënut. léegi ko daan na ko léegi coow laa ngi commencé. ñaan tapet la ak yooyu. la mënul bëree daa roy booy ñaa ba mu ëpp. ay moromam moo ci gën a néew défaite dix combats la am deux défaites dix combats deux défaites 2017 la gëj a daanu 2017 a léegi am na ci mbër yoo xam. macha allah moo daan. Hmm, jërëjëf.